président Macky Sall boobu ba léegi lépp lu muy fexe mooy fàggaagal ay adversaire politique ci ay pexe yoo xam ni yu jaarul yoon la léegi nag man wax bi duma dugg ci ay détails ay dossier euh, euh, euh, Sonko kabal bi ñu koy defal loolu leer na ñëpp loolu dinañ ko jàngat ci yeneen yeneen yeneen anam yeneen jotaay mais ñun li ñu suñu taxawaay mooy interpeller jeunesse su Sénégal et par-delà elle population Sénégal yëpp képp ku fi am un semblant de citoyenneté koo xam ni yëg nga ni ci askanu Sénégal nga bokk bul bàyyee bul bàyyee kenn dara xamal ni mbir mi sa mbiru bopp la parce que dañu bëgg atteindre ci suñu liberté bëgg ñu atteindre suñu suñu dignité ci loo xam ni dafa jalgati yoon parce que Euh, gis ngeen tey li xew assemblée sax euh, day wane ni carrément lijjanti wu ñu yoon léegi nag ñun fi ñu jëm jàmmaarloo rek la jëm wax dëgg yàlla loolu il faut pas ñuy raay wax bi wala ñuy sol ay gants wala ñu ciy sóoraale ku ñu topp euh, incitation à ceci ou à parce que fi mu nekk nii ñun dañu agressé ci suñu liberté dañu agressé ci suñu démocratie ba noppi bëgg ñu gérer kumba am ndey kumba amul ndey duñu ko accepter parce que mënuñu comprendre ñu topp ay militants Pastef di leen jàpp benn par benn di leen coller ay ay motifs de euh, atteinte euh, à la sûreté de l'État euh, incitation à l'insurrection incitation à la révolte et cetera et cetera et cetera ci jamono joo xam ne député Aliou Dunguru Sow Karim naan ko Dunguru Euh, ñëw na fii menacé Sénégal yëpp jaasi ni képp ku contre troisième mandat na pël yi jël jaas yi defante kook moom ba noppi installé pël au loolu dérive ethniciste la sax apologie ethniciste la sax loolu moo gën a grave lépp te kooku député la comme usman Sonko te ba mu koy def flagrant délit la soxlu woon ñu euh, dindi mbalaanu kiiraayam donc loolu moo ñu may ñun askan wi ñu organiser la résistance parce que fi mu nekk nii débat bi dootul ay débat xam-xam dootul ay débat démocratie dootul ay débat liberté débat defante la rapport de force moo moo moo jot parce que moom depuis deux mille 2019 la pare suréquipé ay forces de l'ordre doon am lu mu doon séntu far amul force de yooyu fi mu nekk ni ñoo jël ay ball en caoutchouc di di exercer wu ci kaw population yi di jël ay gadget yu bees yu ñu leen jëndal di ko di ko utiliser ci kaw population yi nga xam ne dañ leen di fekk ci seen àq ak seen yelleef parce que ñi ñuy topp nii tey yëpp li leen ko yóbbee nguur gi moo leen ko yóbbee parce que moo jël benn acte illégal convoqué député boo xam ni dafa jur de son immunité euh, parlementaire ba noppi ni da koy jël si buntu këram ay nitam ñëw pour défendre ko parce que ñooñu amuñu benn légalité pour ñëw jël si député bu bu am immunité parlementaire biir këram. loolu moo indi jàppante yi jàppante yooyu nag incitation boobu mu ngi jóge ci autorité bi nga xam ni moo moo moo créer loolu kon léegi ñun askan bi suñu constitution daf ñu may. suñu constitution daf ñu may ñu euh, euh, résister bu fekkee ni dañuy teg ay nooteel kon fi mu nekk nii jox na ñu bañ a raay wax bi bañ a sóoraale procureur procureur kaso rek la am régime bi amul leneen lu dul kaso kese la am te il faut mu am lu dëgër pour yóbbu nit ki ci yoon léegi ñun dinañu organiser ay comité de résistance ci quartier yëpp organiser ndaw yi parce ñun dañuy noot kon il faut ñun tam ñu organiser wu pour taxaw jàmmarloo ak ñii te duñ ko raay duñu raay wax bi duñu ci ragal ay dem kaso wala ñuy brimer wala ñuy gaañ wala quoi que soit parce que jàkkaarloo jàmmarloo moo fi des rapport de force parce que amatul droit amatul légalité ñii dañ leen di topp ci yoon ci loo xam ne ñoom waa APR bu ñu ko defee dara du leen ci fekk cité naa cité naa Ali Ali Aliou Dembourou Sow xalifa euh, Sall euh, ba ñuy lever immunité parlementaire am mu ngi biir prison te dañ ko ko bañaloon euh, ñoom lu leen neex la ñuy def kon ñun tamit nañu am fulla yi taxaw boole suñu doole organiser wu au niveau des quartiers euh, préparer ay comité de résistance comme ñoom ni ñu ni ñu ni ñu waajalee seen ay takk der pour que bés bu jàmmaarloo jotee ñu defante kook ñoom parce que ñoom ñu ngi jëm ci forcing ci benn dossier boo xam ne bu fekkee ni dem nañ suivre nañ ko juste poursuivre nañ ko jusqu'au bout immunité parlementaire boo xam ni Euh, alxam la euh, procureur di topp ñu ni Ousmane Sonko la ñuy dindi mbalaanu kiiraayam dañ koy ko tëj ko ñu nag du ñu xaar ba loolu am ñu naan dañuy organiser wu ñuy dal suñu kaw ñu ngi ñuy piste du ñu jàpp benn par benn parce que ñoom bu ñu paree ci Ousmane Sonko ci ñun ñii ci table bi lañu lañu la ñuy jëm commencé ko ci ay Assane Karim ñun ñii suñu wax daf leen di déranger suñu taxawaay def leen di déranger kon maa ngi woo toute la jeunesse ñu jël mbir bi seen mbiru bopp def ko au sérieux affaire bi dafa dépassé mbiru Ousmane Sonko Karim nitu dëgg valeur la bokk mais day soutenir Ousmane Sonko kii jeunesse au pouvoir la bokk présidentielle yi usman Sonko la soutenir man mii noonu et cetera mais ku ci nekk muy garder identité am parce que Sénégal moo ñu boole ku nekk dafa am koo yaakaar ni xëy na bu ko yoree euh, dina tane donc loolu mooy démocratie mooy compétition seen ci biir urne la nit di wanee dooleem et non jumtuwaay yi ko état jox mu koy wëlbati wëlbati ci kaw population yi kon kuréel bi ñu sos tey tudd le ñu ngi ci woo bépp organisation boo xam ne euh, defendre Sénégal jot na parce que 88 euh, euh, démocratie la ñu menacé woon mais booba ndaw yëpp la jóg mag yi sax dañu jóg ay maire sax dañu jóg nekk ci mbedd mi xeex ba ab du Diouf dellu gannaaw ba ñu nangu def démocratie ba ñu am code consensuel lu 92 boobu nga xam ni moom la fi ab Macky Sall teggi ñëw teg teg leneenam loolu nag mooy ñëwaat parce que suñu démocratie bu ñu ko naree salfaañi suñuy liberté bu ñu ko naree salfaañi dañuy jóg xeex ko kon moo d'ordre bi mooy mobilisation de la jeunesse organisation des comités de résistance dans tous les quartiers à travers tout le pays ba noppi toog di xaar parce que le peuple est souverain parce que état lu mu am am am am doole askan bi moo ko ëpp doole donc il faut ñu gëm loolu bañ fi nekk fii di calculer ay lu ñu ci mën a fekk nañu xool li ñu war ñu def ko wasalaam